salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ñu ngi nuyu waa Thiès Thiaay benn dëkk ñaari gaar ñu ngi leen di nuyu ñun waa Sunugal 24. ñu ngi leen di nag euh, présenté artiste bi nga xamante ne kenn dootu ko naatable muy usmaan kan di artiste boo xamante ne ràññee nañ ko ci Sénégal yëpp ràññee nañ lu muy def ak liggéey bu sell bi muy def di ñu ko jox kenn dootu ko présenté ci mim réew. salaamaaleykum Ousmane yow lañ seet si woon tey pour waxtaan ak yow. Euh, aleykum salaam waa Sunugal 24 di la nuyu yow soxna Astou di nuyu sa interlocuteur bi nga àndal muy cadreman bi di nuyu àdduna yëpp mais en particulier waa Thiès mbokk internaute ñëpp daal ku lim da ngay siyaar naa ñëpp nuyu naa ñëpp. ñu ngi lay nuyu nan nga gisee xale yi nekk ci dëkk bi di jóg di tayle seen bakkan di jël gaal yi di jóge dëkk di dem ba dëkk di tayle seen bakkan nanga nga ko gisee lu si sa xalaat waaw loolu man j'entends souvent nit ñi di wax xale yi dañuy xaru mais man gisuma ni dañuy xaru dëkk bi metti na te di dund mënuloo sa bopp rek dafa doy waar sàkkantuma naa nga dund nekk responsable mm-hmm. wala nga dund am yërmande ci say wéy mm-hmm. wala nga dund am yërmande ci say mbokk mm-hmm. say dëkkandoo tout soo amul source de motivation rek leneen moo lay motiver maintenant il faut que nit ñi xam ni booy li leen di motiver li leen di teg pression ba ñuy jël gaal ci ay quatre cent mille francs di ko fay d'abord ñi xam ni océan bi d'abord gaal dafa am fu fu mën a yem te ndegam da ngay dem fu am taataa mënoon ndox mu dugg ci am problème mas la géej kon suuf du fit boobu di yóbbu booy ci géej gi nañ ko xoolaat lan la man gisuma nii dañuy xaru parce que dañuy dem rek pour outil parce que solution bu adéquate la ah. ici la boo xamante ni ñoom gis nañ ni peut-être buñ fa jaaree mën a dem tekki te ku du ku dem rek mooy tekki mm. man conseil yi ma leen di jox ñoom booy ñu toog te xam ne ku ci dem muccit du yow yàlla la mm. mais ku ci muccilit lii nit ñi di wax lañ koy tuddee xaru mm. te jaru ko te yàlla mm. dafa pare ci ñun kenn ku ci ne sa destin yàlla pare na ci amaana nag motivation bi leen di motiver ba ñuy dem mooy teral seen i wéjur teral seen i mbokk mais teral seen bopp donc loolu xale yi di dajale bay songu gaal yi na ko état xool état moo war a xoolaat jógaat ci affaire yi ah. avec des sanctions sévères xamal xale yi fi ñuy dem du xaru waaye risque la bu ñuy def te ku ci dee day nuru xaru may ñaan di lancer appel toute la jeunesse sénégalaise même ñu fi dëkkul nekk ci yeneen i dëkk di ko def sax ñu delloowaat seen xel ci yàlla gëmaat seen bopp gëm li ñu doon te xam ni buntu la bu ñu am ñoom di fa jaar des fois ñuy rëcc des fois ñuy mais li ci ëpp importance daal mooy toog investir ci li nga yor wala toog ba am li nga xam ne mën ngaa jaar ci voie bu légal voie bu normal tukki te benn sikki sàkka du la ci fekk mais ni mu demee nii moom état war na cee jóg quoi daan nañ jóg mais instant bii dañoo war a gën a jóg pour sachet booy yi pour xool ñi nga xamante ni ñoo yóbbu xale yi ñu teg leen ay daan teg leen ay sanction loolu daal moom mooy sama te itam ñu bëgg la laaj euh, fan yi tamit dëkk bi bëri ñaxtu loolu ci wàllu série yi nit ñi di ñaxtu ñu gis ne léegi série yi bëri na euh, ñu gis ne tamit nit ñaa ngi ñaxtu ci wàllu kàllaama yi ñuy waxee nit ñaa ngi ñaxtu it ci wàllu solin bi ñuy solo ñu gis ne série yi bari na loolu lan ban gis-gis nga ci am daal. waaw moom gis ak loo ñu ci mën a faram fàcceel. gis-gis yi yomb na ci série yi. Mm. parce que théâtre école la. Mm. théâtre université la. Mm. da ko doon jàng am bac plus pour mën a sax def théâtre. wala nga jàng am bac plus pour mën a def conservatoire école des beaux arts pour génn. yaa xam nag boo fa boo atmee li ngay def. art dramatique art plasticien art art façon art bu nekk musique tout mais loolu dafa dem ba théâtre ñi ko moom muy seen métier muy métier bu noble mm-hmm. moomatuñ ko mm-hmm. parce que théâtre film la léegi lañ def théâtre mm-hmm. parce que bu njëkk les acteurs yi daan yóbbu Sorano il était il était salarié dañ leen daan fay boo newee Sorano on te comme le théâtre professionnel léegi rey nañ ko niir nañ ko mm. bu njëkk dañ daan am ci région yi ci mm. dëkk yi ay salle de spectacle mm. troupe yi mënul jot Sorano da ngay def sa programme dem ci lieu de culte boo xamante nii boo fa wootee nit ñi dina ñëw nga présenter sa euh, sa programme mais léegi loolu amatul ndax profil la ñuy jël profil nag mooy ku mel ni yow wala ñu jël benn mbër wala ñu jël ab joueur affaire bi lañ commercialiser moo tax ñun ñu ci ñëw sàmm ñu ni série yi ñuy def dañuy toog wala nit toog ak ak njabootam di ko seetaan ormaluñu lu ñuy def parce que am na yenn séquence wala yenn scène yoo xam ne boo ko defee ki toog ak njabootam dootu ko mën a xool ak njabootam te dama doon dégg ñuy kaas novelas yi mm. mënoo fay jëlee novelas yi di indi ay scène novelas mm. loolu c'est pas possible mm. maintenant ñi nànk aar ci Sénégal laay wax ñu xoolaat les choses parce que mbir mi tamit dafa am ñu ko moom métier la c'est un métier noble mm. il faut noblesse ne ci yow pour nga def ko c'est pas une question de méchanceté wala que mm. l'art n'a pas frontière dëgg la mm. mais ñi ciy ñëw di ci émerger di ci ut alal wala ñu ci ut bët ku gis wala ñu ciy ut siiw nañu xam ni loolu aussi métier jàmbur la ñu koy def ngir dërëm nañ xam ni dañ fiy bàyyi dërëm yi te dem ëllëg ci leneen lu dul dërëm te bu boobaa dañuy exercer le théâtre l'acteur porteur de voix la. moo taxoon ñu laaj la ñu laaj la ci question boobu ndax yéen yàgg ngeen torop euh, ci li nga xamante ne mooy théâtre mu dem léegi ba jur euh, cinéma bi mën nañ ko tuddee noonu daanaka parce que léegi mbir yi avancé na te yéen yàgg ngeen ci am ngeen ci expérience seen xam-xam màcc na ci te it Sénégal ñu ngi ñuy déglu moo tax tey jii ñu laaj la ci pour bu ko defee ndaw yi déglu euh, ñu mën a. dégg déglu conseil yi pour affaire bi gën a mën a avancer parce que ñun ñëpp la ah, pour ñun ñëpp la Sénégal te bu gënee rafet rek macha allah affaire bi gën a jëm kanam mu mën ñu jëriñ léegi ñun ñu buggoon leen laaj yéen waa Mbetteel yéen lan mooy seen secret ba coow li li muy bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri macha allah euh, gisuñu benn critique ah gisuñu benn critique euh, ci lu jëm euh, ci mbetteel ci genre que ni kàllaama yi déplacé na. wala col bi déplacé na ñu bëggoon xam yéen itam yéen lan mooy seen secret ba ngeen mën a maintenir cap boobu. maintenir amul secret. Mhm. y des acteurs professionnels. Mhm. qui se regroupent là-bas. Mhm. bien avant audiovisuel di xam am. wala quelque chose comme ça. Euh, art dramatique la ñu jàng. te ñi fa nekk ils ont eu des formations yoo xam ne permettre na leen. ñu def théâtre maintenant bi audiovisuel ñëwee. ak aspect professionnel boobu dafay daw ci ñoom. bon booy xool. Bertel base bi lépp jànkeen la. te jànkeen aussi c' est des professionnels. Mmh. ñoo fa ne. xam nañ technique gu théâtre. Mmh. xam nañ ki lay xool di la France. Mmh. li mu mën a dégg ci yow wala mu gis ci ko gis ko ci yow. di ko roy. donc loolu soo ko bàyyee xel. li ngay def. di nga xam bu baax fi nga koy teg. ak li ngay def. li ngay def aussi. li nga xam ni. suba da kiy jóg. sa place boobu sa moroomu doom wala sa set ñëw remplacer la boo léegi nettali day am woy day am mm-hmm. fexeel ba boo gisee sa image suba wala sa njaboot gis image suba mm-hmm. duñ la duut baaraam mm-hmm. loolu c'est très important mais dërëmu àdduna bu tax nga war futteeku nga futteeku mel na nga juddoo woon ci sa ndey ñun suñu culte suñu aada xamul lool wala ngay wax ci théâtre di saaga wala ngay avancé baat yu ñaaw kilifa yi mag ñi dañuy seetaan théâtre mm. kër yi foo ci dugg dañuy enjoy théâtre te da ciy gis yi xale yi ñooy wax yaay kii commencé na mbetteel mm. commencé na lii commencé na mm. mais tey ñoom ñooy xool au retour théâtre bi nga xamante nii toujours mooy jàngale ci nga mën a jëlee ay référence ay exemple yaag sa njaboot te doo am lu la blessé nañu bàyyi théâtre yi ñuy indi di ci ah. won xale yi loo xamante ni mooy mm-hmm. nekkul lu positif mm-hmm. est-ce que comprendre nga parce que nit ñi dañuy jàppe ah mm-hmm. nit nag loolu neex nga parce que lu ñuy indi fii du suñu culte du suñu aada mais on a des réalités Il y a beaucoup de luxe yu ñuy wane ci théâtre pourquoi ñuy wane luxe luxe luxe toujours kër oto nangam nangam solo. ko sumeeku mais man mais pour man euh, décor dafa am solo ci cinéma. mais cinéma décor la. dëgg la. décor la mm-hmm. pourquoi ñoom ñëwuñu à nos réalités mm-hmm. mais foyer ay boo fi dugg mm-hmm. mu ngi yëngu lu koy yëngal suñu ay réalité la suñuy aada la ñun dafa am lu ñu moom ay jullit lañu te mag ñi tax vraiment booy xool ñu considéré ñu jullit xamuñu woon lan mooy àdduna dañoo dëddoon àdduna te ku fi juum wala nga wax safaan ni barke sëñ Bàmba wala barke Alaaji Maalik wala tudd kilifa goo xamante ni. Mm. mais c' est na ñu honte mm. bàyyi yooyu. te xam ni théâtre métier la métier bu noble ñi nga xam ne ñoo ŋànk culture fii si Sénégal aussi mm. ñu sévère ci li ñuy def. parce que métier la bi nit daan si tàdd mais am na ñoo xam ne defuñu ko métier dañoo ñëw pour tentative yu ci. ay dama lay taal dama lay def lii def c' est pas vrai yàlla mooy taal. te ku mu namm nga tàkk di nga tàkk dama bëgg nit ñi ciy ñëw def ko métier. bëgg ko ñu delloo ci seen xel te di xam aussi fu ñuy teg seen tànk métier amul métier booy téye fii foowee ko mu lay jëriñ donc nañ xam ni théâtre am na ñu ko moom te ñi ko moom ñi ko moomul di ci def naka safaan dañuy saxaar lu ñu tàkk te bu ëllëgee dinañ ko layoo waaye tamit bàkk ba jub loolu riir ut si Cees fan yi mhm. ñu bëgg leen laaj ci seen waa ji muy Idy mhm. euh, ci nommé bi nga xamante ne suñu njiitu réew mi ndomee na ko mhm. euh, te dafa mel ni moom déggoon nañ mu wax ne mhm. euh, place biñ ko teg tey mhm. moom muy Idrissa Seck place biñ ko teg tey déggoon nañ muy wax ni amul sens amul euh, njëriñ maanaam ñu teg fa nit léegi léegi yow dama lay laaj noo jàngatee ak noo gisee tey moom place boobu mu doon ko critiquer tey ñu jël ko teg ko ci place boobu mu nangu ko léegi bon man pratiquement man je suis apolitique je suis boo xam ni day dem ci instance politique yi. di tàccoo ko yuuxu. Mm. mais am naa xol buy def choix. Mm. Idrissa Seck mm. bi may porté choix ci moom booba nekkul dara en tout cas fii ci réew mi. c'était en 97 98. moment bi muy ñëw di def entre politique mm-hmm. ci laa xamante ak mm-hmm. ñuy ànd différentes quartiers Thiès yi mm-hmm. muy installé booba man mi maa doon def sketch yi ak tey ñoom saa neex ñoom Aziz Niane ñoom Jojo ay nguri euh, ba yàlla def li mu def bi yàlla defee li mu def après dafa am buuxante buuxante mooy xam naa waa ji damay politique man yooyu taxuma jóg euh, nit la boo xam ne man dama ko gëm dama ko bëgg nit nit ñi du bëggee Youssou Ndour ak keneen ak keneen loolu laa ko bëggee c'est pas parce que Thiès laa dëkk wala quelque chose am na beneen homme politique moo bëgg te dëkku fi mais naw naa xam-xam mm-hmm. xam-xamam ci moom mm-hmm. naw naa diineem mm-hmm. xam naa aussi bëgg gu mu bëgg Sénégal ci yërëm gu mu yërëm askan wi fii kenn ku ne wax nga am ci décision suñu borom nanguwul bu dul dëgg ñi wax ma kilifa gu ne taxaw na fii wax dindiwaat ko mais maintenant moom ba muy wax loolu aussi moom la engagé woon bon dem na ba réew mi man ci selon man ni ma ko gisee soxla nañu aide soxla nañ kut mais soxna nañ ku leen jàppale Macky mm. sénégalais la mais moom dong mënul yor réew te réew xam-xama mm. ko yor ak mm. ànd ak ñu am xam-xam suñu demee ba jamono toll foo xam ni réew mi soxla na noonu Macky am Macky am benn esprit wàcc si suuf waxtaan ak ay magam ay frère de camarade de politique pour xool nu ñu dajaloo liggéey réew mi laa man dàquma benn yoon li Idrissa ak accepté mm. peut-être foofu ko fa jógee mm. la mu fa def bu Idrissa ñëwee la mu fay dolli dina jariñ léew mi kanam mm. mais Sénégal dañoo war a bàyyi toog ci keppaar yi nit ku dem jàngi la mu jàngi xam-xam la la mu jàngi politique la la mu jàng pour am xaalis la mun a dugg ci terrain politique la nga toog fii bu koo calculer naan jaam laa kër xam nga luy jaam ko ànd ak nit ba mu def loo xamante ni c'est pour tout un pays nga taxaw fee di dénigrer kooku yàlla mi ngi lay dégg dénigrer baaxul ku dénigrer rek am na lu luñ dénigrer ci yow am na lu ñu mën a sous-estimer ci yow nañu bàyyi om politique yi ñu liggéey réew mi ca Senghor ba fii ñu toll toujours ñu dañuy tibb dañuy tibb dañuy tibb dañuy jéem a ut fu ñu tibbee wala fu ñu utee moo gën wax ji wax ji bari na ji su noppee ñu ni dafa noppi su waxee ñu ni waxati na nañ ko bàyyi nag mu liggéey man sama man man gisuma ci benn affaire boo xamante ni waru ko woon jël engagement parce que Idy am na ay kilifa am na ay conseillers te ay boroomi xam-xam lañ balaa moo def quoi que ce soit dina consulter ay conseillers dina consulter ay kilifaam te luñ ko diggal moom lay def te moom la def yàlla na ko yàlla jàppale. jàppale Sénégal yëpp euh, tey ndaw réew. ndaw hmm. réew. Mhm. ndaw yi ci biir Sénégal mhm. ñu bëggoon la laaj lan nga leen di xelal pour ñu mën a delloo si seen xel mun a toog lan nga leen di laaj lan nga leen di conseiller yan conseil nga leen di jox pour ñu delloo si seen xel Sénégal ñu ñëpp ay jeunes lañ mhm. man jeune laa comme ñëpp amaana en différence d'âge boo xam ne am mag xale yi dugg ci gaal gi mais gaal gi sax ay mag yi jëm ay yi kër si da nga leen fay fekk ay xale yu jigéen yoo xam ne ils n'ont plus l'espoir dagg seen wax dagg seen yitte xam nga bëgg a bëgg bëgg bëgg dem Europe comprendre nga te amuñu fenn fu ñu koy jaar lu ci gaal yi donc loolu benn phénomène la boo xamante ni il faudra que état gën cee jóg comme ni ma koy waxee yàlla ñaan ñi delloo suñu xel ci yàlla ñaan ci yàlla yàlla dimbali ñu ba xale yi loolu di leen motiver mu mën a dañ beneen bi mooy man je un message à toute la jeunesse sénégalaise ñu xam ni yoon woowu rek du yoon pour mën a dem yoon woowu rek du yoon pour bëgg a tekki y a plusieurs facettes Sénégal nag boo fi newee am na métier yoo xam ni boo koy liggéey ñi xeeb la booy man xam naa leen du motivé de mm. xeebaate bi mm. a xeeb li nga toog nit ñi dofu ñu mm. gis ñu ñi fi toog amu ci kenn ku fi tabax air plus ñii tabax ñëpp dañoo tukki seetlu bu baax li ma lay wax booy ñu ci bëri ay étudiants lañ du ñu ay naxa sax xandang de booy yu jàng lañu amuñu usi fii danay jàng ami diplôme amul suivi du état moo lay utal stage sax yaa koy utal sa mais quand dafa metti dafa metti nañu xoolaat ci xale yi nañu xoolaat ndaw ñi waxuma sax ndaw ñi qualifié mais ndaw ñi jàng ba am état ànd ak ñoom utal leen suivi ci liggéey wala wala wala mu utal leen ay usines yoo xam ne dinañ fa mën a investir te mag ñu fi ne di nguuru boobu ba léegi am nañ ay sët am nañ ay doom am nañ ay jarbaat yoo am xam nañ am nañ xam-xam boobu li daay war a suul yi ñu wàcc seen poste yi te jaamu ji yàlla may xale yi sens man fu côté boobu loolu laa ci wax itam balaa ñoo tëj ma ñàmbaasal la ci rek euh, dernière question bi nga baal ma nag euh, ci kàddu yi mais dañuy dañuy faral di dégg que ni mhm. euh, nitu Cees dañu que dañoo mën a war mm-hmm. que dañoo mën a war daal mm-hmm. que boo sekkanteeg ñoom dañuy foog ñu war la daal am na ñu defanteeg yow mm-hmm. dañ koy faral di dégg nga baal ma nag ci question boobu mais amul lu tax ñu koy faral di wax amul ñu koy wax ah. ñuy wax lool ñooñ ñoo tekkiwul dara uh-huh. ñoom ñoo tekkiwul dara Thiès uh-huh. dëkku mbóot la dëkku bañkat la uh-huh. dëkku bu xam seen bopp lañ dama lay wax partout mhm. partout dans les mhm. régions mhm. yi nekk Sénégal man j'ai la sance dama toog man fépp laay dem soo waxee Thiès dañ lay bàyyi xel ngir lan dévouement détermination ci jom ci ngor ci fulla kenn musul dégg ab Thiès waa wala Thiès waa bu def loo xamante ni c'est spécifique la dëkk yii ñu wër duma lim benn dëkk mm-hmm. ku taxaw di dénigré sa morom mm-hmm. yow matoo li nga doon ci mm-hmm. télé ne di wax mais nitu Cees lu mu la wax du dëgg ki koy wax moo mooy ah, warkat non dañu ne dañuy dañuy faral di war dañuy dañuy gis moom moom mooy warkat non non ba question boobu moom dama la kiy wax parce que wax nga ma baal ma kërëb-rëb mais ñooñ koy wax nañ taxaw digg Cees wala ñu taxaw ak Cees waa ni ko nitu Cees dañuy war kooku noonu ñuy wax ñëpp ay warkat la ñu Cees la ñu gëm ah a mm-hmm. demee nga waxoon fi Cees la ñu gëm <laughs> on fier d'être Thiessois est-ce que comprendre nga li ma la ah. te ku bëgg a xam Cees ak nitu Cees da ngay ñëw Cees ah, yow ah, li may li may tàggoo yow yow soxna si mm-hmm. na nga ma sax quoi si télé laa nekk non pas meru kii noonu mais Euh, loolu baat bu baat bu kii la quoi. te ki koy wax mën na koo bañ a dégg sax. ñun dañuy jéem a xool rek lu situation lu lu lu li maanaam. Euh, dëkk bi di. non non dëkk bi ñun dañoo jàng ay intellectuel la ah, fi ne. moo tax ñuy xam nañu. Oh. jàng nañu. am nañ mm-hmm. xam-xam. Mm-hmm. nañu xool nitu Thiessois poste ak place yi ni émerger ci dëkk bi. Mm-hmm. d'abord ba pare soo ko wax kenn poñewu fi Thiessois ci naka su dul noonu. lii am Thiès am na Dakar am na Saint-Louis am na feneen nag am fan Casamance tout kon li may tàggatoo mooy ñiy wax yooyu nañ bàyyi lool parce que ku ci continuer di wax dinga gis ba loo musul gis di nuyu adduna bi mhm. di nuyu le président de la République ak son nouveau gouvernement di nuyu suñu kilifa diine yi di siyaar sama wasila alaaji Muniru Njëgéen ak njabootam gépp ak i euh, njabootu baayam di nuyu waa Sunugal 24 parce que ñoo ñu jox opportunité bii ñu am tey pour waxtaan ak àdduna waxtaan ak sénégalais ñu nekk ñoo xamante ni aussi seen liggéey rafet na mais aussi dox nañu opportunité artistes yi di dem ci ñoom euh, di leen laaj seen bébét seen seen seen seen soxla ñu am atu pour jaarale ko fi waa Sunugal 24 yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla yóbbu seen télé bi fa ngeen bëgg mu egg fa yéen ko xam yàlla na ko suñu borom eggale barke maam Cheikh Rafa ak yow tamit ak yow moom yow tamit gëm naa la trop. ñu ngi leen di jaajëfal euh, yéen waa Thiès yi nga xam ne tey yéen lañ ci fekk si woon ngeen dagg yitte yëpp ñëw wuy suñu toog jox ñu seen temps déglu ñu tontu tamit si suñuy question ñu ngi jaajëfal waa Thiès yëpp. Mm. jaarale ko ci yow ñoo ngi jëfal tamit waa Sénégal yëpp ñoo leen di gërëm di leen sant ci teewlu beeg déglu.